Euh, LD a essayé la frange la plus importante de LD dem ñi créé LD debout yow nga bàyyi est-ce que bàyyi boobu du erreur du woon erreur est-ce que mënoo woon porter le combat de LD debout face au régime. porter non mënuma ko ndax du man maa créé LD debout. waaw du yow yaa ko créé. mais ah. da nga démissionné de LD. quelques ah. mois plus tard. mu am ñu créer LD Debout. waaw et d' à l' époque quand vous avez démissionné beaucoup de gens s'attendaient à ce que yow nga nekk la tête euh, de file de de de LD Debout mais boobu ba tey daal da nga da nga da nga a noyé. Euh, sa activité non, parce que ñi nga xam ni ñoom ñoo nanguwul loolu. ba génn LD ba créer LD Debout man dama leen soutenir. conduire ma leen dama leen soutenir looloo tax bi ñu wutee seen njiit ma jàppale seen njiit ndax loolu moo doon suma rôle démission bi nag nit ku nekk ak li nga mën ci xalaat ndax man bu fekkee ne bokk naa ci benn parti boo xam ne dañ ni ci fi ñu nekk ñi ngi nekk di perdre sunuy valeur ñi ngi perdre sunu référentiel ñi ngi perdre le sens même de notre engagement politique ci lii ñu nekk sa war nañ ci jóg fexe ba reprendre sunu identité renforcer sunu parti positionné ko bu baax ci seen politique bi loolu ñëpp ñu wax ko ba egsi ci moment élection yi ñu ne léegi ndax dañu war a bokk ak benn bokk yaakaar ou bien dañu war a génn bu ñu décidé ci bureau politique bi majorité bi nii dafa bëgg des ak Benno Bokk Yaakaar sa man ma gëm ni loolu day rey parti bi ma ne loolu man ma nu ma ko jiite waaw ah, dañ la mettre en minorité mu mel ni cette gauche qui a goûté au pouvoir euh, nanguwul woon nanguwul woon dem mais euh, départu problème yi LDMPT tamit euh, xëy na li tax bariwu leen soutien moo ne les choses ont commencé à se gâter avec l'échec de la candidature de Abdoulaye Bathily au poste de de de de, président euh, de l'Union africaine mu mel ni c'est une ambition inassouvie moom moo créé les divergences avec Macky Sall et non une démarche ou une trajectoire euh, boo xam ne euh, régime bi régime bi jël na ko loolu est-ce que bokkul ci li leen gën a affaiblir non loolu xaw ma affaiblir nañu ou pas mais li mu wóor moo loolu bokk mosul bokk suñu débat politique mosu cee bokk. mais ñàkk déggoo bi diggante Macky ak ak Abdoulaye Bathily en tant que allié au sein de Benno foofu la commencé dama ni ñun loolu mosul bokk sunu débat suñu débat mooy li ma la wax sànq suñu débat mooy suñu ànd ci benn bokk yaakaar ñu ci ciy sunu suñu identité politique ñu ngi ciy perdre suñu référentiel ñu ngi ciy perdre suñu sensu engagement politique donc war nañ fexe nu ñu retrouver suñu identité sunu position ci seen politique bi ba nga xam ni li nekk sunu mission mooy transformation progressiste de la société sénégalaise ñu delloo ci